jullit yi mbokki taalibe yi mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ñoom dañu seetaan <clears throat> ci seen émission bi ñu duppee ëttu murit te ngeen miin di ko ànd ak seen mbokkum taalibe Fallou Galass Syll dibéer ju jot bu 22h jotee ci seen télévision bii di Lamp Fall TV ñu jàkkaarloo ak Alxaaji Fallou Syll ci wàllu caméra yi amaat mbégte àndaat ak moom ci émission ëttu murit ñu ànd ak moom nag di nuyu ak a siyaar yoon wi di sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla sun boroom dolli ak wéram dolli ak manam bàyyil ko ci kaw suuf lu yàgg lool te lépp ànd ko wér ba naal yi mu naalal lislaam ñu ànd kook moom àggale ko te am ci ngërëmul sëriñ bi di nuyu ak nag jëwriñu ëtt bi ñu nekk di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ibnu sëriñ Saalih yàlla na ko sunu boroom gën a dolli ak wér te gën a guddal aw fanam te nangu ab liggéeyam te dolli ko kàttan ba mébét yi mu am ci mottali yéeney sëriñ Saalihu def yéene boppam suñu borom bàyyi ko fi lépp ba mu àggale ko ci barke Xadim te ñu ànd koog moom. ñu jaajëfal bu baax mbokk yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ci seen émission bi weesu di ëttu murit te ñu amale woon ko ci njabootug alxaaji Ibrahima Dia tànnoon alxaaji Serigne Dia doon ko waxtaanee ak lenn ci dundug alxaaji Ibrahima Dia ñuy sant bu baax a baax Serigne Abdou Khadir Dia. ak sëriñ Asmor ja ak sëriñ Xaadim Dia ci waxtaan wi ak sëñ Mame Balla Guèye mbokk yi tey nag ñu tàbbi fii ci Lagan Lagan ku ko tudd xel yu bari dana dem ci sëriñ Saalihu Mbàkke waaye xel yu bari danañ dem ci jàmbaari sëriñ Tuubaa di sëriñ Isaa Jenn borom Jenn ak Lagan ñu ne ci barab bu tedd nag muy jumaa jumaa di wàccuwaay bu rëy ci lislaam ndax moom lañu mën a tudde néegub yàlla ci kaw suuf bu fekkee ne yàlla am na ab néeg ci kaw suuf jumaa yi ñooy néegi yàlla ak jàkka yi sëriñ euh, seex ak yëngutoom ak dalam lépp di delluwaat ci diine lislaam li sëriñ Tuubaa xaadimu rasuul jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasalam wax ne billaahi lazi laa ilaha illa huwa xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maha sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam day mel na loolu sëriñ Cheikh daf ko dund daf ko dégg ba noppi di ko dund jaayante na ak boroomam subhaanahu wa taala ci ak dundam akuk yëngutoom akuk dalam ak léppam muy liggéeyal yàlla ci lislaam liggéeyal sëriñ Tuubaa loolu moo tax foo ko dégg programme bépp day delluwaat ci daara yi delluwaat ci jumaa yi ak jàkka yi waaye delluwaat ci nag doomu aadama yi muy ndaw ñi ak defar leen ban mën a mucc ci àdduna xam ngeen ne bokk yi ci jamono ju yàgg àndoon nañoo ñun ci jamono Cheikh Saalihu ci néegub yàlla bi mu njëkk a tabax ci corniche te loolu déggoon ngeen ci reportage bu yaatu buñ ci defoon mu jënde woon pàkk ba lu seer jaayewaat ko lu seer ndax pàkk ba bu dee jar ay million nit ñi fay ci ay million mu ne leen yàlla leen ëpp pay jaay ko yàlla jëlaat alali boppam tabaxe ko jàkka jooje wala jumaa jooje ba mu noppi yaakaar naa ne loolu doyoon na sëkk ci ku ne ku tabaxal yàlla lu toll ne tàggum picc ci kaw suuf mu tabaxal la njéen ci àjjana kon loolu doyoon na sëkk ci ak pay waaye yemut foofu ci corniche muy jumaa ji nekk ci corniche waaye xam ngeen ne daal di na cay teg boo demee ca fa wax mbuur sëriñ Saalihu Mbàkke radiyallahu anhu amoon na naal bu rëy bu fa naaloon waaye boo demee da nga fekk na sëriñ Cheikh defal na ko fa jumaa ju mucc ayib waaye foofu yëmu ca xam ngeen ne Parcelles Assainies def na fa jumaa joo xamante ni bii yàlla rek a tax mu def ko ak dundal lislaam ba fii ñu toll jumaa jooju ma ngay dox te ay million la ci defoon waaye yemut foofu ku ne xam na ne boo demee bustaan muy dëkk cosaanam ci wetu mbuur moom it danga fa fekk jumaa ju mucc ayib joo xamante ni bii def na ko fa ngir dundal lislaam te jumaa yii ma la tudd jum ci mën doon boo demee da nga fekk mu ànd ak daaray alxuraan ak daaray tarbiya noonu la ko defee itam ci xabban boo demee xabban danga fa fekk itam mu def fa néegub yàlla boo xam ne ànd naag daaray alquran ñu fi dundal waxtu yu juróom waaye di fa jàng bi yàlla bi subhanahu wa taala waaye noonu la ko defee itam fii nga xam ne mooy la wax Touba Mbakke tam nekk ci altu daaru salaam bi danga nga fa fekk jumaa ju mucc ayib yoo xam ne ba muy teg xeer wa kenn yëgu ko waaye lam fa def ci ay milliards kenn xamut nu mu toll waaye su noppee rek noonu la koy joxewaat lislaam ngir lislaam mën a am ndam waaye xam ngeen ne bokk yi boo demee itam fee ñuy wax almadi ca ndakaar pàkk yu seer yu mën a jar ay milliards nga fab ko fabaat ay milliards defaat ko ca pàkk ba ne doon loo xam ne doom du ko donn kenn du ko donn yàlla koy moom loolu sëriñ Cheikh def na ko foofu tey jii nag lañ nekkaat fii ci Lagan mu liggéeyalaat fi yàlla liggéeyu lislaam bu toll nii liggéey boobu nag war a toll ci noppi ñu war koo ubbi samedi ajjuma la 18 incha allahu rabbi ñu toog ak sëriñ Ibrahima Khalil mi nga xam ne mooy jëwriñu daara ji feggoo ak sëriñ Balla Jaxate Habibullah waaye di siyaare bu baax sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa kër gi ci ndigalul sëriñ bi di ko ànd nag ak ki nga xam ne moom la sëriñ bi sëñ Saaliwu tànnoon def ko jëwriñu dëkk bi def ko jëwriñu daara ji tam nekkoon jëwriñu liggéey bi taxaw ci taxawaay bu am solo. moo ji alhaaji Samuel saar mu sëriñ Saaliwu incha allah dana feeñ ci biir waxtaan wi lool moo tax tey seen émission ëttu murit doxantu nekk fii ci Lagan damay bàyyi kàddu gi ak sëriñ Ibrahima Khalil mu nuyoo su noppee nag dikkal ñu ci nag cosaanul daara ji ak ni fi doon donga yi doon jànge ba agsi ci niñ fi defee ci jumaa ji nga xam ne jenn jumaa la rek ci tund wi sëñ Khalil auzu billahi min asheytaan rajim wa inni auzu bika rabbi auusu bika min hamashati shayatin wa auusu bika an yahduruun wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi noo leen di nuyu baax te siyaare di la nuyu sëriñ fàllu te dalal ci barab bu tedd bi di am mbégte lool ci bokk ak yow waxtaan wi ngir tur woowu nga tudd muy ëttum murit ndax am murit wërta toog ci lu dul ab ëttam kon nag euh, buñ toogee fii ci néegub yàlla bi di wax ay kaddu yoo xam ne ci atum murit la jëm kon alhamdulilahi rabbil alamin kon noo ngi lay tatagal baax a baax te di la nuyu Xalil kon mm, xam naa ngir njëkkante ak waxtu wi euh, dañoo buggoon rek nga ñëwaatul ñun ci njëlbeenu cosaanu daara ji nga xam ne mooy lagan Eh, nga xam ne sëriñ Saalihu moo la fi indi woon yow mbokk yi mën a xam fàttaliku kañ nga ñëw ci daara ji ak bi ngay ñëwee li nga fi féete woon ak fi njàngum alxuraan mi toll woon ak sëriñ Saalihu taxawal gi mu fi taxawaloon lislaam ba ni mu ak ci sëriñ Seex. ak asalaamaaleykum sëriñ Fallou kon ginnaaw bu ñu leen nuyoo ba noppi danañ jéem a dugg ci loolu nga laaj barab bii day barab boo xam ne. barabu tawféexi sëriñ Tuubaa jum dëxañ la foofu la barab bi cosaanam tàmbalee ndax ku xam na ne barab bii ki fi njëkk a wàcc ci njabootug sëriñ Tuubaa mooy sëriñ Isaa Jenn te day mel ne ba mu fi wàcc si ci joxoñub sëriñ Tuubaa la fi la fi la fi la fi la fi wàcc anhu yàlla na yàlla dolli ay leeram nettali na ma ci barab bii loo xam ne loolaa tax ma xam ne moom it junjub sëriñ Tuubaa la doon topp ba agsi fii ndax wax na ma ne sëriñ bi dadaa wax mag ñi ne leen bu ngeen dee sañci bu leen ma féete penku da may féete soowu wala wetu ndeyjoor gi wala wetu càmmoñ sëriñ Isaa bi mu koy wutloo moom sëriñ bi barab bu mu mën a dem di jaamu yàlla ak yar njaboot geek ak liggéey ci wetu ndeyjoor gi la ko junjoon ne ko demal ci wetu ndeyjoor gi nga seet foo ko mën foo ko mën a amee sëñ bi mu toppee ndeyjoor gi ba ñëw ci boor yi barab yu bari jaar na fa moom sëñ Isaa sëriñ Saali boo may nettali nee na sëriñ Isaa bi mu delloo ci ku baax ki ne ko maa ngi doon seeti barab boobu nga ma doon wax kat daal di koy limal barab yam jaar moom sëñ Isaa sëriñ Saali nee na ma sëñ Isaa ba mu lim barab yooyu lagan la mujj a tudd daa mel daf koo xawoon a fàtte. daal ne ko ah, fàtte woon naa kon barab bu ñuy wax laga nit kat jaar naa fa nee na sëriñ ne ko xaakasa foofu ay barab ba kon barab bi cosaan li junjub sëriñ Tuubaa bu mu junjoon sëñ Isaa Jeen la waaye ci baaxu sëñ Tuubaa sëñ Isaa junj boobu matal na ko ndax barab bii sëñ Isaa dafee fanaan rek daal di jàll boori njënd gee benn guddi dafa fanaan ba fi ñëwee ay pël la fekk pël ya dalal ko mu ne leen sëriñ bee ma yabaloon fii ngir ma man fee toog di jaamu yàlla ñoom it ñu ñaan ko njëkk ne ko barab bi yaatu na ndax fi fépp lagan la ginnaaw sëriñ bi lagan la la la la junjoon kon nag noo war a may tuuti war ma dem ci wàllu penku gi tuuti su ko defee yow nga man faa doxal loolu ñuy tam nga man ñoo bàyyi fii ñuy sàmm sëriñ Saliou ci taw ju rëy ji ko sëñ Tuubaa defal barab bi sëñ Isaa fanaanoon ak di feek daara ji matul ñetti téeméeri mètre kon day mel ne junjub sëriñ Tuubaa boobu moo taxoon mu daa wax ne barab bii daf koy barkeeloo ngir junjub sëñ Tuubaa waaye sëñ sëñ Issa sëñ sëñ dafa war warmaal Serigne Touba fi mu ne barkeelu boobu muy waxit ci sëñ Issa Diène ci boppam boole na ko ci ndax mu ñoom dañoo bëgg sëriñ bi bëgg lum defar bëgg lum am kon ñaari barkeelu yooyu la boole woon ci barab bii loolu moo tax mu wàcc si woon ci barab bii eh, di fi di di fi jaamu yàlla nag ko sëriñ bi daal liggéeyal di fi yar ay ndaw di fi xam xamle loolu moo fi indi sëriñ Saliou radiyallahu anhu macha allah jërëjëf sëñ Ibrahima Khalil. kon daal nañuy xam cosaanul barab bi ne kon ci ndigalul sëriñ bi la yàlla dogal na it bi ko sëriñ bi wërlu sëriñ Issa Diène la yebaloon mu wër ko bi ko sëriñ Issa gisee itam moom sanc na ci ci tund ci ci ci tund wi waaye fi nga xam ne moom la sëriñ njëkk a fanaan moom bu ñëwee day mel ne dafa bokk ci biir suufu sëriñ Saliou loolu kon day mel ne moom sëñ bi ko yónni woon rek moom la wan na ko suusaa ngi nii mu ñëw sanc suufam kon loolu moo fi indi sëriñ Saliou mu tudd ko suufu su barkeelu kon waroon na nañu xam moom sëñ Xalil moom kañ la ñëw ci daara ji ak ba mu ñëwee lu mu fi féetewoo. ok asalaamaaleykum wa man de maa ngi fi ñëw 2001 laa jóge xel koom mu indi ma ci barab bii bi mu ñëwee it fekk naa fi koo xam ne moo yoroon wàllu daara ji jiite liggéey bi waaye booba daf ne ma damaa bëgg nga dem boo demee diwa nga fa muy sëñ tey ba sekk laa fi fekk. nema ma sëñ Taïba boo demee na na yor daara ja nga ànd ak moom ci liggéey ba su defee nga saytul ma njàng ma ak jàkka jooju nga di ko nga di ko taxaw kon lii ñu toog yittee Serigne Saliou yittee Serigne Saliou la 2001 la ma waxoon li ne ma boo demee njàng ma nga di ma ko taxawul ak di ma saytul gone yi ak jàkka ja su ko defee Taïba moom dana mën a féete lijjanti tool ya ak lijjanti kër ga nga jàppale ko ca wet googee loolu moom fi indi 2000 2001 2001 la fi ne laa fi nekk ak euh, ba ba ba mille la ko sëñ bi yóbbu foofee ci tubaa mu jéego ko nag ma boole loolu ma sëriñ bi santoon mu joxaat ma ndigal ma yor loola ak la sëñ Taïba yoroon kon 2001 laa ñëw fii ci Lagane. Hmm. Euh, jërëjëf kon mën nañoo xam yow bi ngay ñëw ci njàngale mi lan nga fi fekk ci ay dongalu ci toll ak li nga xam ne jaare na ci sa loxo watu alxuraan bu fekkee ne mën nañoo xam lim ba wala bari na ak boobu jàkka ji fan la nekk ak nan la meloon. ok waaw xam naa bi ma fi ñëw moom li ma fekk ci dongo ci waxtu woowee booba daanaka ëpp téeméer ak fanweer wala téeméer ak ñeent fukk ci ci jamono yooyu ndax daa fekk booba li ëpp ci eh, gone yu xaw a magaale yi sëñ bi da leen di yóbbu xel kom nga xam ne fii daanaka liggéey bu amul woon solo tout tànk yi rek ñoo féete woon ngir njàng ma mën a gën a gaaw ak ñu di leen toog ci ndànk-ndànk ci liggéey kon lim bu toll noonu laa fa laa fekkoon wax dëgg yàlla macha allah nag diggante 2001 ak léegi. wax dëgg yàlla njàng mi li fi mokkal fii ci daare Lagan ji moo xam ci eh, teewaayu Serigne Saliou la wala ci ginnaawam la mën nañ ne ay téeméer la fi mu ne ñoo xam ne wattu nañ fi alxuraan ñu ci baree bari jàng nañ fi xam-xam ba ba ba ba ba ba dañu réer ci seen wàllu diine suñ jeexalu lépp it am nañ luñ mën a téye seen diine bu wóor a wóor ab lim bu takku daal wattu nañ fi alxuraan ci diggante 2001 ak léegi. moo xam ci jotaayub Serigne Saliou la wala jotaayub Serigne Cheikh bi nañ ko doon wattoo ci jamono yi Serigne Serigne Saliou it dara dara dara wàññiwu ko ca ba ci jamono ji mën nañ ne ay téeméer la. jërëjëf euh, jërëjëf kon euh, ñoo ko doon dëggandoo yaakaar naa kon daara cosaan la joo xam ne jàng alxuraan ak jàng xam-xam ak yaru yarub diine yaakaar naa ne loolu leer na mel na lefi mokkal alxuraan bari na bëggoon nañoo xam jamono jooju itam jàkka ji fan la ne ak euh, taxawaat waaw kay waaw jàkka ji moom fii ci biir kër gi la la nekkoon hmm, sëriñ Saliou barab bu taxawal jàkka la fay njëkk a def daara daaraam joo ma dem ji àdduna boo duggee li ngay njëkk jot mooy mbaar mu ñu jàng alxuraan teg ca jàkka ju ñuy ñuy jullee soog a dem ci biir daluwaay donga yeeg ak ak ak ak daluwaay boppam te moom mos a taqale daluwaay boppam ak daluwaay donga yi kër gi lépp kenn lay doon mu féete fii donga yi féete fii waaye néegub yàlla la njëkk a defal. Euh, sunu borom si daara jëpp ju ma a sanc kon jàkka ji boobu ci biir kër gi la ne woon mu defaroon ko daa fa jiital boppam julli bu ko mënut it fa teg mu mu yebal la fa noonu la la demee woon kon jàkka ji ci biir kër gi la ne woon ba tey mi ngi fi ba tey mi ngi fi ba fii ma toog di wax ak yow fi la ñuy jullee fi mu ne waxtu yu juróom. jërëjëf jërëjëf sëñ Ibrahima Khalil bëggoon nañoo xam jamono jooju itam programme mu njàngum alxuraan mi ak programme mu njàngum xam mi. ak programme liggéey bi nan la daan doxee ndax ñu bëree bëri dañuy yaakaar ne nag doom ku ko yóbbu ci daaray tër bi rek rey ko ko wala sànni nga ko waaye booba amoon ngeen programme boo xam ne lii ci njàngum alxuraan mi la jëm lii ci njàngum xam mi la jëm lii ci liggéey bi la jëm lii ci waxtu dal la yem bëggoon nañoo xam programme boobu. waaw waaw sëñ sëriñ Saliou de yàlla na ko yàlla fayal euh, dafa dafa am xibra maanaam dafa dañ kumpa ci li ko sëñ Tuubaa doon defloo ci méttitu méttitu yar daf koo daf koo xam ba ba ba mën sëkk ndax niiwaana ku daa boole jàng ak liggéey ñu bare bari ci li jiitu Serigne Saliou dañ daa wax naan daaray njàngaan jàngane daaray tërbiya jëma nga ne Serigne Saliou nag ci xereñam ñaar yooyu da leen a boole woon lëkkale leen ñuy leen nga xam ne kiy jàng mooy kiy tarbiyew kiy tarbiyew mooy kiy jàng kenn ku weesu jàng nag boobu amut waaw kenn ku weesu jàng moom moom sëñ Saliou nanguwut loolu waxtu wu waxtu wu ne rek sa daa war a nekk ci jàng ak liggéey ba tax nos bi daf ko nosoon hmm, daara ju ci ne daf ko daa def fukki daara ak ñaar daara ju ci ne day am jëwrin joo xam ne mooy saytu néeg ba di saytu tool ba am ci ñoo xam ne ñooy saytu njàng ma nga xam ne ki eh, ki lay saytu ci liggéey mën naa bokk ak ki lay saytu ci njàng waaye nit ku ne am nga ku lay saytu ci wàllu njàng am nga ku lay saytu ci wàllu wàllu liggéey léeg-léeg nag nga gis ko am tawféex yi koo xam ne day boole ñaar ndax kiy jàngale mën naa doon jëwriñ <laughs> kiy jàngale mën naa doon jëwriñ lu ko suñ tuwaa defaloon la te lu jafe la su ko defee kon saytu boobu noonu lañ ko daa noonu lañ ko daa doxalee waxtu waxtu jàng wi day day am moom bu fajaree fajar moom kenn demul tool njàngum njël daf koo farataaloon lool ak njàngum marax ndax da wax ne mag ñi ñu ci baree baree bari wat nañ alxuraan te ci marax lañ ko lañ njàngu marax képp ci lañ ko ci lañ ko wattoo ndax nee na booba jamonoy sëriñ bi sëriñ bi ab yëngutoom dadaa dadaa bari ci bëccëg gi li muy santaane ci bëccëg gi day bari lool ci ci ci yëngu ak dara ci guddi gi sax nga xam ne mag ñi buñ masaa yendu ca toole yi buñ ñëwee dañuy fanaanee jàng ba fajar ñu dem waaw loolu loolu kon noonu la ko noonu la ko noonu la ko noonu la ko séddalee woon te dafa mas a wax it euh, loo xam ne danañ ci xam ne mbir yi dañ leen a a boole ndax dafa mas a wax ne daa am tuut tànk boo xam ne dañ ko joxoon ku baax ki muy moom sëñ Saliou moo ko nettali ñu jox ko sëriñ bi bi mu ñëwee sëriñ bi dafa jël kaamilub alxuraan jox ko ak jiwu gerte ak saafu kafe ak dollub xasida ne ko ginnaaw wattu nga alxuraan kat kaamil bi dama bëgg bu fajaree balaa jënta fenk na nga ci jàng fukki sib boo jàngee fukki sib yooyu ba noppi gerte gi jiwu bi bu yàlla si tawee na nga dem ca tool yi di ko liggéey fajar goo jàng fukki isib ba ba jant bi fekk nga dem liggéeyi boo liggéeyee ci tool ba ñëw saafu kafe gi bu la yàlla xéewalee kafe nga saaf kafe ga te di ko xéewloo dollu bii nga de ci jàng xasida daan ne ko ak murit nag génnut yooyu kon ak murit mooy jàng ak liggéey ak naan kafe ak jàng xasida nag waaw loolu loolu loolu loolu la ko daa noonu la ko daa noonu la ko daa loolu it ci la ci la yar mboolem mboolem dong yeeg jaboot yi ku ci ne xam nga ne boo xëyee lay sa wërteef mooy jàng. buñ ne acca ci njàng ma eh, kenn warula la jiitu kenn waru la caa man suñ ne bisimilah ci tool yi kenn waru la caa jiitu kenn waru la caa man li ci desin nag muy toq gi muy liggéey bi muy loolu lool ci la bokk liggéey fexe ba ba ba yëngal say cër ak ak ak dañu dañu dañu rëy ba fuñ la fekk nga bañ a nëbbu murit gi nga doon mooy di di feeñal di feeñal sëriñ bi ci sa bopp. ci jërëjëf jërëjëf eh, sëñ Ibrahima Khalil. loolu nag Sénégal fii ñu toll war nañ cee dégg bind ndax fi mu ne sëriñ bi bi muy joxe kaamilub alxuraan la ko ñu ko jox kon nañu xam ne alxuraan mooy ndey lépp daf ko wax ne fajar gu jot na nga jàng fukki isi bi alxuraan waaye faqra'u yow mi mënut fukki isi bi itam war ngaa seet la nga mën ci alxuraan nga xëy jàng ko ba noppi waaye naka te kon ab murit wërta xëy te jàngul alxuraan waaye bu jàngee alxuraan ba noppi itam. sëriñ bi néewut nga continuer ca kurus ga wala ca jukki ya dafa laa jox jiwu ne la demal ca tool ya booba dem tool la dem tool nag mooy dem wuti métier te liggéey yi ndax itam nag bool jumaa jii kat li muy rëy rëy jumaa yi sëñ Seex jii ay jukki alxuraan kat tabaxu ko dolli xasida yu bari tabaxu ko aw ñaq ko tabax te ñaq woowu daa ànd ak alal kon boo liggéeyi wut doo mën a def dara moo tax mu ne ko na dem liggéeyi kon ñaari tomb yooyu war nañ koy jël ba noppi nga jàng xasida te naan kafe lu ëpp ci nit ñi nag léegi jàng xasida ak naan kafe lañ yaakaar ne mooy bàmba ji fekk na dañoo bàyyi ñaari tomb yi ko jiitu woon waaw yaakaar naa ne ñaari tomb yooyu mën naa delloo siwaat bu baax a baax a baax kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm day mel ne kon ñi ñuy topp moom xam nañ cosaanul daaray Lagan xam nañ itam cosaanul e, jàkka ji mu mel ne ku tudd Lagan da nga tudd mbayum saaño bëggoon nañu ci fànn googu itam nga ñëwal ñu waaw mbayum mbayum saaño mi day moom itam lii cosaanam ci lagan mooy xeeñtu bëggug sëriñ saaliwu rek ndax euh, saañu si ñu fi ñu fi bay sëriñ saaliwu moo wuti woon jiw wi te it daf caa sonnoon lool ngir bëgg ngir am ko ngir delloosi ko loola itam mm, ak doyloo yàlla ak ak jàngale moo taxoon mu sonn ci ndax daf ne woon euh, jiwu saañu de damaa bëgg mu dellusiwaat ci réew mi ndax dañ ko daa bay te mu gëj fi lool ma bëgg mu dellu si ndax di topp jiw yi nga xam ne day gaaw a ñor rek day mel ne ñaaw ñor sa digganteeg sa borom la moo tax ma bëggoon mm, saaño boobu fu ñu fu ko mën a dégg ci réew ba ci bitim réew nañ ma ko wutali daal di génnee lim bu takku ci ay koppar jox ko sëñ Thierno jonn Ngoye mais moo jëndi jiwu saañu boobu moo ko jënd woon sëñ Saliou yàlla na ko yàlla doolu wér ba moom itam loolu lay topp ba ba at mu ne mu ñëw fii ak li muy màggat màggat ci ngóobum saaño mi loola itam ginnaaw uh, ba mu jotee ci jiwu saañu woowu defe naa ne ñaari at wala ñett la la la nekk ak moom ci zahir moom jiwu hmm, bay na ko xel kom ndookaa gi bay na ko fi eh, ba ma yëgee loolu nag ginaaw bi mu fi jógee bi Serigne Cheikh mii ñëwee te yàlla na fi yàgg lool te wér te sunu borom defal ko tawfiq yi mu àggale butum bitum Serigne Saliou laa ko nett lii sëñ bi wax ne ko nag man dama bëgg su ma ci amee ndigal loola ma féetewoo ko moom lagan ñu féetewoo saa ñu sos ginnaaw ñoroon na ko. te te te noonu noonu noonu la ko bëggee woon ñu mottalil ko ci yéeneem mu ne ma tubaarkàlla loola am nga ci ndigal loola moo tax boobaa bi fi jógee léegi béyu ñu lu dul saañu suuna képp la ñuy béy noonu jërëjëf jërëjëf euh, ginnaaw bu ñu xamee cosaan li léegi itam day mel ne li fi indi jiwu saaño wi indi na fi jëwriñ itam kon day mel ne daara ji ku ko tudd sa xel yëpp dem ci Samuel Sarr bëggoon nañoo xam itam moom dafa tànn daara ji rek wala sëriñ ci jamonoy sëriñ Saaliw la ak lu ko booleeg lagan daal. waaw moom de moom de eh, day boroom borom tawféex moom Samuel Sarr moomu ndax dafa bëgg sëriñ Saaliw lool te yàgg koo xeeñtu di ko liggéeyal barab bii itam nag ci jamonoy sëriñ Tuubaa la eh, ci jamonoy sëriñ saaliwu sëriñ Tuubaa sëriñ Saaliw mm, la waxoon sëriñ bi ne ko man de daara yi nga am yëpp lagan moo ci gën a dugg sama xol mm, sëriñ bi ne ko ah kon de. damaa defee ne kon day sëb cër noonu mu daa tontoo mu ne ko daal daara nga am lépp la na ci gën a dugg sama xel mu ko damaa defee ne kon day sëb cër loolu mu ko junj nag cër boobu moom mu jàpp ko téye ko jàpp ne sëriñ bi du du waxantu ginnaaw ginnaaw ginnaaw moom nee na ko sëb cere a cëre ma cër boobu lool loolu moo ko indi fii ci lagan ci jamonoy sëñ Saaliwu ba tey lépp lu waaye di sumb lagan day defe na moom moo ci war a jiitu ngir ñaari mbir nag ndax moom dafa jàppe boppam mm, di doom ju war a liggéeyal baayam moom euh, bàyyi la jàppe sëriñ Saliou te man wax na ma ko ci làmmiñam te loola it ay ay ay ay waxi biir la dafa jàppe boppam doom ji war a liggéeyal baayam ndax sëriñ Saliou daf koo bàyyoo moom nee na ma sëriñ Saliou fi ma bàyyi di féete foofu la ma sëriñ Saliou féete woon jàpp it nag muy murid bu war a liggéeyal ab sëriñam loolu ñaar yooyu ñaari cofeel yooyu ak tawféex ji ma la li ci ne eh, loolu loolu mu loolu mu jokkalanteeg Serigne Saliou ci kàddu bam na ko damaa defe ne kon day sëb cër cër boobu mu téye ko bu baax a baax a baax nag boobu ba léegi lépp luñ fi yëngu loxoo ma nga ca xolam mi ngi fi xelam mi ngi fi. kon bëggoon nañoo xam moom ay taxawaayam ci jamonoy sëñ saaliwu laata ñuy ñëw ci bi Serigne Cheikh jotee ci Lagan. waaw ci diggam mag daara ji. waaw ci diggam mag daara ji moom moom waxtu wu ne loolu mu ne mu ne ko woon sama xol da cee ne xolam da newoon ci jamonoy sëñ loxoom di ci ne képp kum gis nga jóge lagan day day day wax ne kii de sama mbokkum dara nga xam ne donte li muy nekk daara li muy nekk ndakaaru daa amoon yéene nekk daara Serigne Saliou loola it nag boobu ba tey loolu la jàpp dafa jàpp ne moom kenn la ci waa lagan a taalibe la boo xam ne kenn la ci waa lagan lépp lu fa sëriñ bi sumbu daf ko war a ànd ak sëriñ bi ne ko dong ngay ànd moom lépp lu fa waaye di def it moom nga ko defal loolu la jàpp. <laughs> kon loolu jëfam daana ñëw ci Lagane Serigne Saliou di dund di ko gis. waaw bu wér a wér bu wér a wér bu wér a wér bu wér a wér jëfam moom ak taxawaayam mësta dañ di di tàbbi ci daara ji ci jamono Serigne Saliou ba ba léegi. <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Ibrahima Khalil Lo jërëjëf itam euh, El Hadj Fallou Sylla mi ne ci wàllu caméra bi jërëjëf bokk auditeurs yi ñuy topp seen émission ëttu murit ñu di ko amale fii ci daaray Lagane euh, di waajal ubbitel jumaa ji kon sëñ Ibrahima Khalil ginnaaw dégg nañ cosaan lépp bëggoon nañu nag 2007 bi yàlla dogalee Serigne Saliou dem àjjana Serigne saaliwu Serigne Cheikh ay ay ay taxawaayam yi nga xamante ne bii bokk na ci li ko Serigne Saliou batale ca daara ji bokk ci donte lépp la ko batale waaye liñ ko cërale daaree Lagan bokk ci euh, taxawaay bi Serigne Cheikh ci Lagan ànd ko ak sëñ euh, jëwriñam euh, di sa El Hadj Samuel. ah alhamdulilah macha allah xam naa li wala fii di wax ne ku yokkut yaa wàññi loolu dal na sëriñ Seex ci barab bi ndax barab bi de bi mu ciy jot ci zahir barab bi aajo woon na taxawu ci zahir ak baatin lépp waaye tawfeex ji ko sëriñ Saliou defar ak taw tawfeex ji ko sëriñ Saliou di liggéeyloo moo tax barab bi tàbbi ci loxob sëriñ Seex sëriñ Seex mosu koo laaj mosu koo xëccoo mosu ne bëgg naa daara sàngam waaw ko ci jotale sëriñ Tuubaa ak Seex Saliou rekk sëriñ bi bëgg ma liggéeyal ko fi mu jotale ko ci barab bii ndax tànnalu ko boppam dañ ko ko tànnal euh, ba mu ci jotee itam barab bi mooy xamle boppam ndax ku fi ñëwoon bi fi sëriñ Saliou di jógee muy 2007 nga dellusiwaat fi 2022 bii boo gaawee fàtte mën nga réer ci biir kër gi danga nga defee ne du la nga fi bawoon booba ndax néew la lu mu fi soppiwut te lu ci ne la gën la la fa def ci zahir mu ànd ak baatin ba it nag ndax dara mooyu ca mooyu ca la sëriñ Saliou defoon fa sëriñ Saliou tegoonub tabax foofa la ko teg fu mu tegoonum foofa la ko teg waaye nag gën naa dëppook jamono kon téye na baatin ba ba ba ba ba ba tasaare wut la sali wu defoon waaye nag taaral na ko ba fu sali Saliou bàyyi woon ak taar ci benn sëriñ Cheikh yóbbu na ko ci fukk wala fukk lu teg loolu nag ku xool gis ku làmb yi daj ko ku déglu it da nga ko dégg loolu kon wax dëgg yàlla. taxawaayam ci ginnaaw Sëñ Saaliw ci barab bi man dama koy faral di wax te ma te li ma koy wax dama koo dama ko wax ne ko bu la Sëriñ Saaliw battale woon lagan képp nga xam ne lim la battale lépp lépp lépp lagan nga ko ci defal nii bu ëllëgee boo ne ko woon lagal defal naa la ko lii rek doy na doy na la liggéey yow boobaa du la du la wax dana ne waaw góor dana xam ne boccut ab yaafus ginnaaw waaw te lagan képp nag laa la wax ak ak yeneen yi waaye ni mu ko taxawale lagan donc ginnaawam doy na ab liggéey sëkk yàlla seere na ko kon nag yàlla na fi yàgg lool te te suñu borom aar ko te sàmm ko te moom. amin amin jërëjëf jërëjëf sëñ Xalil waaw bëggoon nañ foofu itam eh, sëriñ Cheikh wax nga ne sëriñ Saliou bi mu fiy jógee téeméeri dongo ak bi mu fiy nekk bi ngay ñëw ci daara ji ay téeméeri dongo ak fanweer nga fi fekk yu demee noonu ginnaaw sëñ saaliw bi sëñ Cheikh di ñëw lim fekk ci ay dongo ak fi mu yóbbu njàng mi ak fi dongo yi toll fi mu ne. waaw moom it de noonu noonu noonu ma waxee ci ci ci zahir si noonu ci ci ci ci daara ji noonu it la doxin wuy demee njaboot gi it noonu la demee. ndax wax dëgg yàlla njàng mi bi mu fi bi sëriñ bi sëriñ Cheikh ñëwee dara lu ci damm ak lu ko lek la fi sëriñ Saliou bay woon amut bu dee liggéey bi nag moom mën naa ne yokku na ginnaaw saali Saliou ndax nii ma la ko waxee bi fi sëriñ Saliou jógee ay tut tànk la fi bàyyi yoo ne daanaka dañ daa nab nabi ci mbay rek lu néew lañ daa lañu lañu daa bay waaye jamono yii may wax ak yow mm, macha allah falilah alhamdu wa shukru mbooloo mi gën naa yaatu liggéey bi it gën naa yaatu te liggéey bi li muy yaatu yaatu yaatu yàqut njàng mi yàqut it bi kon mm, foofu itam jéego bu bu bu bu bu jëm kanam lañ ci seetlu ci diggante Serigne Saliou ak léegi bu dee lim bi itam li fi Serigne Saliou woon daanaka mën naa ne lu ko ëpp ngi fii ci daara ji ndax fi ma toog di wax ak yow rek ñeenti téeméeri dong yi day day day tegal ñeenti téeméeri dong yi day ñu ngi ci biir daara ji fi mu ne kon nag loolu moom itam mm, lu ma ta sant yàlla la kon mm, li ma doon wax ci njëlbeen rek ku ku ku yokkut yaa wàññi moom ñeme na ab yokk lool ci zahir ak ci baatin moom Serigne Cheikh yàlla na ko suñu borom defal tawfiq baax a baax. jëf euh, sëñ Khalil lay mel ne lu jóge ci téeméer ak fanweer dem ba àgg ci ñeenti téeméer yoo xam ne si yéen ku ci nekk bu xëyee danga nga ne ci téere bi yàlla bi di ci jàng te du yàq seen jàngum xam-xam bëggoon nañu ñooñu euh, fi alxuraan ji toll fan la ci xam ba ànd waaw moom itam xam-xam bi day day ànd ak day ànd ak day ànd alxuraan jooju. ndax euh, Serigne Saliou da daa wax ne képp koo xam ne dafa war a wattu alxuraan dara jërut gàllankoor ko ba wattuwul alxuraan ba ñaare gone gi bu xamee ne euh, man manees na koo jàppale ba mokkal balaa laal dara ci njàngum xam-xam day mokkal téere bi yàlla ba noppi su noppee nag daal di tàmbali di jàng ay téeram loola it ba tey euh, nosom boobu moom la ñuy doxal fii nga xam ne ko fi wattu alxuraan koo mën a doon dangay ngay daal di tàmbali jàngum alxuraan njàngum xam-xam. di ko booleek di ko booleek di ko booleeg jàngale ak di liggéey eh, bu fekkee nag seet lañ ne ba xam ne yàlla yàlla bindewul ñëpp nag ñu man koo ñu man koo jekkoo noona ku ci neyit nag fasam xel toll boo demee ba nga xam ne léegi tey diine war laa togg jëf te wërtoogoo alxuraan nga boole alxuraan ji ak di jàng xam-xam waaye ku mën a ku mën a eh, wattu téere bi dañ lay beral jàngum alxuraan nga jàng ko ba mokk soog a tàmbali di jàng xam-xam bu fekkee nag loolu yër nañ ba xam ne nit ki am xelam mënta gaaw a wattu alxuraan mu boole ko te te mi ngi bëgg doon mu kàllaf ndax mu kàllaf mu ne nag war naa jaamu ji yàlla xam ay farataam su ko defee ñu soog koo boole moom ci noonu. xam-xam bëggoon nañu xam téere xam-xam yana yan ak la ñuy jàng fii ci daara ji. waaw moom de téere yi sëriñ bi lañ fi lañ fiy jiital. lu mel ne tasawudu saxaar jawharu nafis naxaju xada alxaaj masalikul jinaan mm, ak yu mel noonu waaye téere yi ci des yëpp it nag dañ ko fi jàng lu mel ne risala ba ci xalil ak xeeti téere sarfu yi laamiyatu afaal ak téere luxa yi maqaamaatul xariri yi téere yooyu daal moom lañ fi waaye nag téere yi sëriñ bi def daal ci lekk xale bi di njëkk a tàmbalee jàng te moom loolu itam sëñ Saliou da ko watuloon ab diwaanu boppam boo xam ne aw sas lañ ko tuddee ni mu amee sasu xasida boo xam ne danga ko war a mokkal te di ko yëkkati noonu la amee woon sasu xam-xam boo xam ne ca ngay tàmbalee te mooy téere bi yooyu mu dajalee woon te yooyu ma doon lim ña nga ci biir. kon daal képp koo xam ne jóge nga fi moom ci daara ji bu sa alxuraan àggee sa wàllu njàngam xam-xam amut lenn luñ lay laaj ci diine te doo ci mën a tontu. Ah, waaw loolu loolu wér la danaa wax ne eh, ku ma noppi ci yow foo dem doo doo sa wàllu diine waaye teggin yaa tax waaye kum noppi ci moom foo dem man faa yor diine mën ko faa taxawal. macha allah loolu moom loolu moom moom moom yàlla na dimbali ba mu noppi ci noonu waaye kum noppi ci yow rek foo dem man faa taxawal diine moom. Hmm. Eh, ni ma dégg ci sa biir wax itam day mel ne fu alxuraan di àggee xam-xam bi àgg fi eh, toq gi ci liggéey dana àgg foofa. waaye day mel ne it xasida yi am na sas woo xam ne doo ko mën a ñàkk a mokkal waaw xasida yi dañ ko wutal aw sas woo moom itam doo ko mën a ñàkk a mokkal faaw da nga koy da nga koy di ko yëkkati nag di ko di ko yëkkati loola it dadaa wax ne dee leen fonk di yëkkati xasida ndax xasida dana dana dana ñoddi leer dana dàq seytaane moo tax yëkkati gi daf ko doon farata ci ci ci ci donga yëpp nag mokkal gi moom farata la waaye yëkkati gi it nag farata la loolu itam da ko da ko wutaloon ci xereñ gi ma lay wax rek Eh, ndax dadaa wax ne li tàmbalee gaawu ba ba àllarba nañu jàng alxuraan àllarba ca ngoon ba ajuma ci ngoon nañu jàng xasida nga xam ne alxames ak ajuma ci lañ daa gaaw fu toxlu sas boobu mu sas mu sase ci nga koy ci koy mokkal bu dee bu dee njàngum yëkkati nag boom bis bu ne la moom waxtu jant bi soo balaa fajara jot moom faaw kuréel yëpp daañu yëkkati waaye bu dee njàngum xasida di ko mokkal nii rek alxames ak ajjuma la ko féete loon bu gaawoo ñu delluwaat ci alxuraan bi. macha allah eh, jërëjëf sëñ Ibrahima Khalil kon day mel ne buñ noppee daal sëñ bu jàng jotee dana mën a jiite dàng gone yi jàngal leen bu demee ci tool yi mu ànd ak moom ca waar wa bu ñu wàccee mu jiite leen ci julli gi tëral leen seen bindub xam-xam waaye dana mën a dem ca waañ way toggal leen añ waa day macha allah kon daal kii bu ci suñ bi noppee moom nit ku noppi lay doon euh, macha allah euh, bëggoon nañu xam itam kon ni nga tudde woon léegi nii euh, jëwriñ ji di lagan tudd ko te it danañ ñëw ci taxawaayam ci jumaa ji bañ war koo ubbi day mel ne it kon bi Serigne Saliou demee bàyyi ko fi ak Serigne Cheikh itam daa àndaat ak moom liggéeyub lagan. moom dafa àndaat ak moom liggéeyub lagan ndax fam bët ba mu doon xool Serigne Saliou lay xool Serigne Cheikh barab ba mu tegoon tànkamit muy lagan ci jamono si Saliou ba tey teggiwu ko kon moom mm, boobu ba tey dara lu ci lu mu ciy dang daay wala mu damaa defe ne sax. Eh, ci jamono ji la ëpp cofeel ci ci ci ci barabu Lagan moom fa mu tegoon tànkam ba ci Serigne Saliou ba tey teggiwu ko nam àndi woon ak Serigne Saliou it noonu la ànd ak Serigne Cheikh mi ñu di ko sant bu baax te di ko ñaanal sunu borom defal ko tawfeex ak tey siir Euh, jërëjëf euh, ñuy siyaar bu baax a baax alxaaji Gille ture RTS moom itam ku am taxawaay le ci xel koom ak lagan ak kër Serigne Cheikh ak liggéey yëpp da ciy am taxawaay ba ni ñëwee ci euh, daara ji sax gis nga affiche yi mu def ak di nemmiku fan la liggéey bi toll di mu ngi koy siyaar di siyaare soxnaam di siyaare mbooleem kuréel yi muy àndal yëpp. kon sëñ Xalil ci noonu lañ amee nag ba sëriñ Cheikh gis na yokk war na mu def mu naal jumaa ji. li ma lay wax ci. xeru sëriñ Cheikh ci ci ci ci ci ci barabu sëriñ Saliou yi ndax moom dafa jàpp ne barabu sëriñ Saliou yi képp la war a euh, di dundal waxtu ne ci di ko dundal ci ci ci di taaral ak di ko dundal ci nemmi ko te it mm, sunu boroom defal ko tawféex yi mm, liggéeyloo ko ci diine mu boole diine te diine yi sëriñ Saliou euh, te it gis na ne gis na ne àdduna. waxtu wu ne day gën di dox te te li sëñ daa wax naan murit xol ba dafa war a rëy xol ba daa war a yaatu loolu daf ko wàll sëriñ Cheikh ndax daa taxawoon ak moom bi mu gisee ne jàkk ji ci biir kër gi kër nag baax na lool waaye nag jamono mën naa dem ba mu xaw a xat mu ne dañoo war a wut kon ab jullikaay ci penc bi moo xam ne jullikaay ba day xaw a yaatu hmm, su ko defee ñu mën a ñu mën a ñu mën a tuxal hmm, jullikaay bii ci biir kër gi di bàcc ko fi di ko barkeeloo waaye nag mbooloo mi buñ baree ñu man di jullee ci penc ma li ma lay wax ci xirug murit ak lu ko Sëñ Tuubaa def loo nag ndax lambu tuut ba yàgg mu ne moom de xanaa kon dañ ko war a far def sax jumaa waaw moom mooy xër gi ma doon wax léegi ci ci ci ne murit xol ba daa war a daa war daa a daa loolu moo tax mu indi ko fii te it loola loola day cosaan ci diine ndax yàlla kenn defalu ko lu gën a màgg tabaxal ko ab néeg ci kaw suuf te it nag cosaanu lislaam lépp liggéey ba mooy jàkka. ndax kenn réere woon mbir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee Makka jëm Madinatu Munawwara jàkka jàkkale fa njëkk a taxawal ànd koog saxaaba ya buñ xëyee xëy ca buñ gontee gont ca sëriñ Seex nag loolu yàlla defal na ko taw feexi loolu mu royee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci barkeb maamam barab bu ne bu fa dee bu fa dee bu fa dee tabax jàkka yit nag mooy jiitu ca liggéey ba yoru laxasaayam mooy jiitu ca jëf ja mooy jiitu ca ca ca ca ca yëngu ya kon dafa jàpp ne moom itam li fi ñu war a féete sëriñ bi te foofu rek lañ ko a féete defar ay jullikaay te di ko dundal da caa bokk ndax sëñ Tuubaa kat ku ne xam na ne ba muy nekk Gabon ca mm, te sori lool ay mbokkam sori lool waa lislaam teewutin mu wowutoon ay bantam yoo xam ne jàkka la ko tudde woon waxtu bu julli jotee mu dem fa kon loolu liggéeyub sëriñ bu ko ñoroon la liggéeyub sëriñ bi bu ko ñor la muy taxawal jàkka loolu ci la uh, sëriñ Cheikh sukkandikoo ba xam ne sëriñ bi kat nag al ibaada wal xidma loolu la daa la daa soññe mag ña jaamu yàlla ak liggéey rek jaamu yàlla nag fa mu mooy ci néegub yàlla ba mënees na ko fu ne nag waaye defar yàlla ab néeg bu jaamu yàlla jotee ñu ne néegub yàlla baa nga ne loolu dana gën a jox taar jaamu yàlla jërëjëf euh, alxibaadu wal xidma alxibaadatu wal xidma yaakaar naa ne alxibaadatu jaamu yàlla moom ñi ngi koy defee fii wal xidma boo demee xool tool ya kon yaakaar naa ne sëñ Cheikh ñaari tànkam yëpp mi ngi koy teg ko ci jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla ak liggéey te moom la sëñ bi soso yoon wi day mel ne itam ci loolu bi nga ci ñëwee sëriñ Cheikh fu mu dem rek daa mel ne daaray lagan ku ko tudd tudd Samuel daa mel ne daa daal di ànd ak moom nag ci jumaa ji fas yéene ni mu doone jëwriñ ci tool yi doone ko jëwriñ ci kër gi mu doone ko jëwriñ ci liggéeyu jumaa ji. waaw mooy liñ doon wax léegi rek moom moom lépp lu sëriñ Seex sumb rek ak fu mu ko mën a sumbee bu dee lagan day daal di jàpp ne loola la ko sëriñ Saliou waxoon rek kon damaa defe day sëb cër day daal di xam ne am na sëb cër boo xam ne waru koo bokk kenn day daal di feddal la xasaayam loola sëriñ bu bëgg ca lagan nag mu ànd moom fexe noonu nu muy amee ak nu muy rafete ak nu muy gënee loolu moom mooy doon yitteem ci saa su ne waxtu ne muy fedli laxasaayam ci li sëriñ bi bëgg ci ci gox yëpp waaye nag rawatina barab bii nag ndax nag wax dëgg yàlla liñ naan ragal péete day fee day day xañ <laughs> nit ku nit ku ne nit ku ne fa mu féetee ak ak ak ak bi féeteel war na koo ñor war na koo def yitte nag wax dëgg yàlla ñor na ko te def na ko yitte ndax moom daana ñëw di nemmiku si liggéey bi ci lu dul événement ay ta ay jéegoom ay taxawaayam déplacement ci biir liggéey bi ak ci biir daara ji. waaw moom de ni ma la waxee rek moom dafa jàppee ne ab donga la ci biir donga yi am na kilifa gu baax ku koy tooñ damaa bañ a tudd aw turam waaye ndongal daara la koy la la koy wooyee bu ko jubee mu ne kooku ndongal daara moom daanaka dafa jàppee boppam ab dong ci biir dong yi nga xam ne bu ñëwee ci daara ji it day jàppee ne ab dong bu ñëw ci daaraa ngi nii mbubbum Samuel Sarr da koy summi teg fële mbubbum taalibeb sëñ Saliou sëñ Saliou lay duggee ci daara ji waxtu wu ne waxtu wu ne it ab xelam ak xolam ak xalaatam ci loolu rek la koy jëmale Eh, jërëjëf euh, sëñ Ibrahima Khalil Lo jëwriñu daaree Lagan jërëjëf euh, sëñ Balla Jaxate mi nga xam ne moom la ñu toogal ci jataay bi te muy kenn ci sëriñ Cheikh waaye di kenn ci sëriñ euh, El Hadj Samuel ñu bu baax sëriñ Saliwu Jaxate moom it xam nañ ko bu baax a baax ci taxawaayam di siyaare El Hadj Minikaar yaakaar naa ne moom itam ci gone yi doy waar yi la i jaar ci daara ji eh, kon sëñ xalil yaakaar naa ne léegi tey ñu toll ci fi nga xam ne fi lañ war a yëkkatee jataay bi léegi nag Lagan. dañoo boole ku tudd ngóobum saaño tudd ko ku tudd jumaa fi mu toll tembe ci tund bi da nga tudd lagat ku tudd alxuraan da nga ko tudd waaye nag ndakate da ngeen ba yàlla gerte nag sëñ Xalil. waaw moom de loolu itam ndax gerte gi nu mu toll rek noonu la noonu lu dugub ci tool rek noonu la gerte gi toll. waaw noonu noonu noonu ci waaye ndax eh, li ñuy bay dugub at mu ne moom mooy gantu gerte bi. ren ren ren ren incha allah yàlla ci yàlla yóbbu bakkante sëriñ bi yàgg fi loolu te lii ñu bay gerte bu dee déwénee moom la ñuy bay saaño loo fi gis ci ci ci ci ci tooli saaño rek lu toll noonu mi ngi fii ci tooli ci tooli dugub nu saaño si tool rek noonu la dugub ci toll du saaño kese kese la ñuy bay waaye gerte gi it noonu la toll incha allah. jërëjëf kon xam naa rek euh, kàddu yi ndénkaan ndax fi ne jamono lëj na ñu bari itam ñi ngi attaqué daara yi rawatina daara yi tarbiya euh, ca saali Saliou mas na maa ci làmmiñam bi may loo émission tarbiya bi nga xam ne moom la ñu wootee ëttu murit léegi daf ma ne woon Eh, salaaw de ak tërbiya daa bari ay tuuma te amut ku koy layal ma bëggoon sa liggéey bépp nga jëmee ko ci daara yi tërbiya bari na nag tuuma yu jëm ci tërbiya mu nag eh, yan kàddu la sëñ bi yëkkati jëmee ko ci ñi nga xam ne seeni doom jaar na ci daara ji ci amuñu ci rëccu ak ñi nga xam ne am nañ xel yaar ci seeni doom ñëw ñëwagut ci daara ji. waaw loolu de sëñ Fallou xanaa sant yàlla bu baax ndax lépp loo xam ne yàlla rek a ca ne seytaane amu cëb cër loola day bari tuuma Mm, loo xam ne yàlla rek ca ne seytaane amu cëb cër tuumaa cay ne ndax seytaane day day daal di bëgg a jël tuuma wodde ko loola ba ba ba ba jéem a yàqal nit ñi ngir ñu bañ caa dem seytaane loolu mooy ab liggéeyam kon daara dafa mënta ñàkk ci nit te mooy te mooy te mooy te mooy te mooy te mooy tërbiya ah, loolu itam mooy li ma la wax nit ki bu bu daa bu bu bu daara noppee ci moom tëna seytaane tëna adduna tëna bakkan ñett yooyu nag moom seytaane du du du seytaan mukk nag muy yomb ci ñoom am lu lu mën ci mu jafe ci ñoom rek seytaane dana ko def waaye tarbiya dafa mënta ñàkk ci nit te ku ci noppi ñett yi ma la wax moom bay ba nga xam ne te nga leen te nga seytaane të nga àdduna të nga bakkan te ñetti yi ku leen të ak nga am ngërëmul sa borom te ngërëmul yàlla rek moo tax doomu aadama wàcc ci ci kaw suuf loolu moo tax tuuma ji tuuma ji bari waaye tuuma ji kër li bari bari bari sëriñ bi danaa wax ne. ragaluma ku ma tuumaal ku ma fekk ci tuuma laa laa ragal waaw ragaluma ku ma tuumaal waaye ku ma fekk ci tuuma laa ragal kon foofu ndinkaan li mooy ñi ci nekk nañ ci nekk rek te yàlla tax ndax yàlla kese la yàlla ju neex nag amut yàlla moom balaa neex ëllëg mooy radiyallahu anhu wa radu anhu zalika liman xashiya rabba li feeg foofu foofu àgguñ fa mënta mënta neex kon nag nan ko nan nan muñ tuuma yi te jéem a yaraan njaboot gi nag ndax jamono laaj na ko fii mu Mm, jamono dafa laaj yaraat njaboot gi dëkkalaat la fi sëriñ bi bàyyi woon te mooy te mooy te mooy te mooy li sëriñ Saliou wax naan ku jox sa doom danaan la boo demee na nga ko ko jàngal te yar ko te toqi ko ci liggéey mënta mënta ñàkk kon gone yi nañ leen jàngale njàngum diine bu noppee ñu toqi leen ci liggéey ndax ñu doon ay gor nañ leen toqi yi nag ci ci jaamu yàlla ndax mënta mënta mënta mënta ñàkk kon nag yar ndaw ñi ak toq leen ak jàngal leen mënta ñàkk ci jamono ji jamono ju ne nag mas na koo laaj waaye ji moo ci raw ginnaaw ji moo ci raw nag na ko ñëpp defaat muy seen yitte sunu jëwriñ ji de yàlla ko yàlla bàyyi moom Serigne Cheikh mi ngi ciy bay waaram bu baax a baax a baax a baax a baax royukaay la te it nag loolu ma doon wax ci ci ci nangoo encaissé tuuma yi loolu moom ku xool gis ko ndax fi mu toll nii képp koo yaa ngi ci lu baax rawatina ci daara nga di ko yëngu su fekkoon ne boo boo yox-yoxee woon wala wala wala nga bëgg sa intérêt bopp. ba bu soobee boo ci génn kenn du la say daal la nga fa daal yee sax da nga ko fay bàyyi waaye nag nanu ñor te nekk ci te taxawal Serigne tubaa ci loolee ndax loolu rek moo doon liggéeyub Serigne Touba nag li ci des lépp nag moom mën naa gis keneen ko ko defal waaye lii mooy dëgg-dëgg liggéeyub Serigne Touba. jërëjëf sëñ Ibrahima Khalil Lo euh, dafa mel ne <clears throat> li nga wax nii euh, damay wax ne toujours ne dongo bi Serigne Saliou daana ko wax ci ñi nga xam ne ñoo jaar ci tarbiya Serigne si leen doon tarbiya daanañ ko wax. dongo bi sëriñ Moustapha Bassirou mas na maa dégg ñu nettali loo xam ne lu ko ëpp solo mosuma koo dégg dafay am dongo bu ñu wax mu ne kii dama koo wàcce waaye kee dama koo wàcc ñu ma bëgg ñu xàmmee ki ma wàcce nag ak ki ma wàcc bari na lu lay naqari ci ab donga nga ne jaar na ci daara ji fekk na wàcce wuñ ko moom dañ koo wàcc waaw kan wàcc nag nu ko neex mel naa mel ndax acteur bi am daa matut moo tax ñu ne la acteur bi engagement ab nawet la boo jiyee sa gerte gii ba mu tàmbalee sax boo ko daggee da ngay ñàkk gerte te te doo am ngooñ loolu mooy dem ba tàbbi ca daaray tërbiye ja sag tërbiye agut nga dagg ko dootoo am àdduna dootoo am yàlla lu bari nag dañuy jaawale dongo bi nga xam ne daa tërbiye bu am ngërëmul yàlla ak dongo bi nga xam ne daa xaajale ak tërbiye am dagg ko foofu it yaakaar naa ne am na différence bu fi am. Serigne Saliou radiyallahu anhu daf ko daa leeral da daa wax ne dongo bi tërbiye ak murit bi tërbiye wut ñoom ñaar ñu ngi mel ne kii daa am gerte kembam kii dem ca toole ji ak kembam. daan ne ki ji ab kembam nag lay ngóoraam mooy góorgóorlu rek bay ko mu mu meññ su ko defee bu ko bu bu bu ko bàyyee ba mu meññ dana ci jariñu dana ce mën a jariñi waaye bu ko bàyyee ba mu booy kat wala mu deqi ko te ñurut du ca jariñu du ca jariñi loolu mooy dongub tarbiya bi maanaam yàkkamti dafa bari loolu lu muy yàq al ajalatu min ash-shaytaan te jamono uh, dafa yor melo woo xam ne fi mu ne ku ku teelu wut te amoo tawfeex yàkkamti daan la yomb. Mm, tarbiya nag day togg goo xam ne bu ñorut moom boo ko yekkee nag du la amal njariñ mm, moom loolu loolu loolu loolu mooy li li suñ jëwriñ jooja sëñ Moussa Bassir di wax ku ñu wàccee ku ñu wàcc ki ñu wàccee moom mooy ki nga xam ne góorgóorlu na bay aw jiwoom ba mu ñor ñu ne ko demal fob li nga bayoon kat macha allah tubaarkàlla mi ngi noonu boo demee del jariñu te di ca jariñe kooku mooy ki ñu wàccee. ki nga xam ne nag moom aggut foofa bu deexee te ñorut nag dañ naan ko ah ay la yéwén de moom mi ngi noonu xam naa bo waaw waaw boo ko boo ko mënee yóbbu nag daanaka du amal njariñ ndax mbay mu ñorut mënee su koo jariñoo waaw te sëñ Saliou daa wax ne nag ki nga xam ne nag moom jiwut jiwut kembam mooy mooy ki dugg ci ci ngirum tarbiya nee na moom bu ko neexee gerteem mu caaf ko yëy bu ko neexee mu dëbb comme ñeex bu ko neexee lu ko neex mu def. kooku mooy murit bu jaaru ci tarbiya. jaaru ci mi engagé wu ne maa ngi tarbiya yow yow yow yow yow ji nga sa gerte ba noppi lay sa ngóor rek mooy góorgóorlu bay te te te te muñal ko nag ba mu ñor nga deqi ko. lu ko mere da ngay ñàkk macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Ibrahima Khalil Lo ñu ngi koy sant di ko gërëm damay wax ne toujours ne do kii fa baayam fab wala yaayam bàyyi àdduna na la jox naa la ko ngir jëmi yàlla loo def ci moom lu dul yàlla rek war nga ko ay moroomam wàcc nañ ko fi dem Italie ay morom wàcc nañ ko fi dugg ci école bi ay moromam wàcc nañ ko fi dem liggéeyi ña doon jàng métier am nañ métier ña demoon Italie am nañ ay lañ fa doon ñi duggoon ci école bi am nañ ay diplôme moom mi nga xam ne moo demoon ci daara tarbiya dara arrangé ko lu weesu nga ne ko ngërëmul yàllaa ngi nii loo ko joxoñ lu ngërëmul yàlla rek da nga koo wor da ngaa war ak njabootam kon sëriñ si tarbiya am nañu responsabilité donga bi ñuy ko fa yóbbu ngir mu tarbiya sa responsabilité nga nga mën koo matane ñi ngi lay sant bu baax baax di la gërëm di sant bu baax a ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan seen télévision bii di Lamfal TV di sant Alaaji Bala Jaxate di sant sëñ Ibrahima Xalil Lo di a yàggal te gën a doole ak wéram ñaanal Alhaaji Samiyal Sarr yàlla na suñu borom borom doole taw feexam doole ay suturaam musal ko ci pakk yëpp àggale ab liggéeyam ci sëriñ Saaliwu seen mbokk taalibe de Fallou Galass Sylla nekkoon ak alhaaji Fallou Sylla ci wàllu caméra bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillahi finin الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من له